suñu borom moo sàkk ñaar dund ak dee wet gore weteli koku gore yalla sak am sak ñak sak asaman sak suuf sak góor sak jigen. tudde len góor ak jigen waxul góor jigen ba jigen góor waw góor idi yay jambar tigi football di ay foo du tax nga sedek a doon foo sa dëkk ak sa diiné def la jambar wa France buñu bañé sax buñu dem mondial ga ci Qatar ala du jënd sap jambar né sa tour ya doxé ko am iman goré te goré mu Idrissa ganna Gueye football du tax nga randal sagaru drapeau du tax nga sa diiné ak sa drapeau ñàkk lepp am yalla mo la gënal am lepp ñak yalla sen xass du tax ñu xof bay loof kon di ngeen dof ndax idi du ngaaka bay dof Mbappé di ka sponsor ngeen di xof idi fonku diineem ngeen koy cof fi moy Sénégal gor jigen du fi téré gal de ko musulman ak chrétien duñu sax ay crétin nul n'est au-dessus de la loi mais Dieu est au-dessus de toutes les lois aucune religion n'accepte votre gay té duñu gënal suñu foi Idrissa Gana gay et non gay le football uni mais confronte deux équipes le même objectif mais pas les mêmes systèmes ni les mêmes idéologies le football était un sport d'équipe, mais chacun est libre de ses appartenances et de ses idéologies. Nous sommes le pays de la laïcité. Nous sommes un seul peuple, un seul but et une seule foi. Et rien ne sera au-dessus de notre foi. Yalla sak jigen, jigen, gay. Hashtag Julit. Hashtag eSport TV.